man nag génnaguma benno dama ne damay continuer di taxaw taxawaayu sentinelle génnaguma fa de waaye nag xaw ma ba kañ laa fay nekk waaye génnaguma fa kon nag vote non du question fii nga far walla fële nga far wala fii nga bokk wala fële nga bokk voté non mooy assumer en tout conscience li nga xam ne moom nga comprendre ci liñ la indil wala lañ la ca waxul kon nag il foog ñu xajaatle ñi voté non parce que dañoo ne ay opposant lañu man yaakaar naa ne en tout cas man gëmuma ne nit pour opposer wu contre benn nit rek da nga voté non lañ la indil bu la doyutee nga bokk bennook bokkoo fa war ngaa def li la war wax ko askan wi ndax bennoo nag foog naa ne mën naa caa génn waaye constitution bii mënuma caa génn ndax dafay tegu ci suñu kaw ñun ñépp mën nga yeewu génn Benno Bokk Yaakaar mën nga yeewu génn opposition dugg ci kambale gis nañu ñoo xam ne dañu voté wii lan la ñuy voté wii ba parce que bëgg nañu fekki nguur gi est-ce que seet nañ ndax li ñuy voté moo gën ci nguur gi am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir non bi ñu ngi ne non la ñuy voté parce que xeex la ñu samp ñun nag samp ñu làngu xeex ñun dañoo xool li ne ci biir ñu am loo xam ne leerul ci suñu bopp te mayuñu ñu fenn fu ñu koy leeralee rafetal sab ëmb nag wala jël sab togg togg ko ba mu ñor xaw ma ndax da koo kaani ndax da koo poobar wala da koo poson ne ma jël ko nga jox ko askan wi day wax dëgg yàlla bokk bennoo bokk yaakaar duma ca dugal ndax fekkewu ma foñ ko toggee te waxoo ma la ca def ak la nga cay wàcc.